ñu wax ak vision beeg est-ce que changement bi warutam jiitu rek ci suñu jëmm yi ba pare ak suñu suñu état d'esprit ak sunu conscience en tant que citoyen bu nekk mooy suñu tegee programme bi ba ne sénégalais li lañ bëgg ngeen def mm-hmm. man ma toog man kase sama ruq mm-hmm. ma ne man en tant que sénégalais lii ñu bëgg def man lan laa si war a contribuer ban laa ci mën a apporter laa si war a ban taxawaay laa si war a mën a am. Mhm. ku si nekk bu defee noonu. Mhm. mais man mënu ma toog par exemple di la rey ak wax fii nii naan la non changement dëkk bi dafa war a changé. Mhm. su ma génnee si biti su ma naanee sama kaasu café dama koy sànni si mbedd bi dox sama dox. fan la changement di amee. am na ñu ñii lu lu mel ni corruption. ngi dégg naa ko lu bëree baree bëri si biir discours parce que c'est un problème. bon gouvernance ñu denk la mbir nga jël luubal mm-hmm. donc yooyu dafa nekk yoo xamante ne nii bu faw ñu apporte ci des des solutions bonne gouvernance bi nga wax mm-hmm. ak lu jëm ci capital humain et j'insiste chaque fois ci capital humain capital on a humain. une jeunesse jeunesse boo xam ne bu fekkee ne formé nañ ko ni ñu ko war a formé mm-hmm. mu pare ni mu war a pare amul luy impossible suñu kanam c'est sûr c'est quinze pour cent de jeunes de jeune mm. sëñ bi loolu loolu soo ko exploité mm. amul luy impossible ci sa kanam yow da ngay xool rek bi fi Sénégal jëlee. Coupe d'Afrique mais nga gis yow li ngay teg. doo ñii fan lañ dëkk te man damaa toog ba mu yàgg ma ne ANSD nañu wax dëgg ñun ëpp nañu ay. 17 ak 20 millions. c'est-à-dire cette jeunesse là jeunesse nga am nañ kàttan. Mm-hmm. war a liggéey. Mm-hmm. dëkk yoo xamante ne su ñu amee woon jeunesse boobu du duñ ko gëmee. Mm-hmm. ñun on a cette chance là donc il suffit ñu am une bonne formation. am xam-xam mën a liggéey moo xam kuy jàng métier laag mhm. moo xam kuy def leneen ak leneen ñu mhm. outillé leen ba li ñu soxla ci développement ñoom ñu mun ko def mhm. aussi ñu nekk une jeunesse saine parce que boo demee tey ba au Sénégal euh, ndaw yi ñu ñuy wax ay. gulu gulu gulu gulu ak ay. sëñ bi mooy loolu. Mm. c'est des choses yoo xam ne moom moo ñu mën a enfreindre moo mën a moo mën a baare suñu yoon ci mm. développement. mooy ndaw boobu nga soxla tey pour liggéey réew mi. Mm. bu fekkee cette jeunesse là elle est pas consciente wala dafay dem di. un esprit sain dans corps sain. li lañ soxla amul leneen. Mm-hmm. voilà am ñu dem jeexale une économie compétitive. moom xam naa ne. Mm-hmm. bu ñu amee jeunesse bu dëgër euh, bien formée ci loolu rek la ñu mën a yóbbu mooy économie boo xamante ne vraiment euh, dina dina mën a compétitive. et c'est ça mooy li may wax sànq. premier mm-hmm. li jéego bi ñu war a njëkk a def ci ci économie. Mm-hmm. mooy dooleel ñii seen document bi nag résumé résumé na. lépp vraiment mais sérieusement politique à part. Mm-hmm. wala ak tendance boo munti doon wala fépp foo munti far. vraiment <laughs> euh, il est temps que ñu concentré wu. nga nangu c'est ça. c'est ñun li ñu tarre moo bëri. imagine ñun mhm. de 1960 ba tey. Mhm. réew mi nekk fi la moo nekkoon lam ba ban situation la réew mi nekkoon. Mhm. mooy ay kii dañ koy fal. say mbokk ñëw nga seddoo xaalis bi sàcc fii dugg na fii génn na fii. si ay détails lañ nekkoon. ñu dem ba benn moment nga gis conscience bi nga xam ne ni jeunesse bi commencé nañ ko am di xeex. mais ñun avancé bi ñu njëkk am en politique mooy bu njëkkoon su ma yore xaalis bu bari ñëw xëpp ko damay gagné. mais nga dem ba moment boo xamante ni de alal ju bëri ay milliards bëgg a gañe mënut a gañe mhm. nga gis koo xam ne yorul xaalis nit ñi dem ànd ak moom ne ko yow lañ ànd ak yow dañoo bëgg nga defar réew mi parce que dañoo gëm projet bi ñu proposé. Mhm. waaw loolu bu fekkee ni àgg nañ à ce niveau là il faut ñu comprendre ne am na conscience bu bu bu ndaw ñi am. Mhm. conscience boobu énergie boobu ñu am. gis nga bi ñu doon xeexee énergie bi ñu doon wàccee si mbedd mi mhm. énergie boobu la ñuy jël canaliser ko vers des actes yoo xam ne moom moo ñu war a yóbbu ci ci développement mhm. mooy tey jii ki dàqoon mhm. dañ laa soxlawaat ci beneen xeex mais xeex bi nekkatul taal pono xeex bi mooy tey jii naka nga mën a contribuer si développement Sénégal li si jiitu mooy liggéey c'est-à-dire ñun bu fekkee ne tey ku amul formation nga fexe ba mu am une bone formation fexe ba mu fexe ba mu liggéey léegi nag une économie compétitive li si jiitu mooy yow munoo di waye di loo saa ay doomu réew. Mhm. di dooleel ay doomu réewu jàmbur. mais lan moo tax est-ce que dafa war a impossible Sénégal ñu dem ba am réseau télécommunication boo xam ne nii. ay sénégalais ñoo ko moom si biir réew mi. Mhm. mën nga si jël benn exemple mais doo ko weesu. donc pourquoi pas moo gën a néew doole ci fi na. moo gën a néew doole et c'est très mooy naka la ñu war a def tey jii ba euh, sunu ay doomi réew ñu dooleel leen. Mhm. gis naa. le président euh, Bassirou Diomaye Faye ci yenn voyage muy def. Mhm. mu nga xam mu am ñenn ñoo xam ne buy génn dafay ànd ànd ak ñoom. Mhm. par exemple affaire Azer gis nga li si xew coow li si xew yëpp. ak yiñ ci wax. Mhm. mais pourtant le DG ci renégociation bi mu def dafa fekk ci marché bi liggéey boo xam ne dañ ko waroon dénk c'est-à-dire ñoom entreprise bi aw AOP e bu Espagne. dañ ko waroon dénk yeneen i nasaraan pour ñu liggéey ko mu ne leen. loolu mun a nekk bi mu xëccoo ak ñoom ba ne leen faaw ko renégociation am mu ne leen léegi liggéey boobu ngeen di wax dañ koy sous-traiter mais des entreprises locales yu nekk ci biir réew mi c'est-à-dire daf lay permettre tey nga am benn transfert de technologie mais ñun malheureusement exemple bu simple terre bi ñu waxee dañuy indi terre. Euh, le ministre euh, Moussa Balla na ma koy déglu mu expliquer mu ne ñun waruñu dem di jënd ji ay train ñu ne ko lan lañ war a def mu ne dañoo war a dem. ñun ñu samp suñu entreprise. Mhm. nationale boo xam dafay defar terrain. Mhm. ñu dem woowi ay borom xam-xam yu nekk bitim réew. indi leen ci biir réew mi boole leen ak suñu entreprise yi ne ci biir réew mi ñu liggéey ensemble déjà ça va nous permettre de gagner en en expérience. Mhm. bi si topp mooy euh, loolu noonu daf lay permettre yow depuis fii ak ay at da ngay dem ba yow sa bopp yow yaay jaay terrain yow mais doo soxla dem di wuti ji terrain pendant ce temps ñun bi ñuy wax loolu mu mel ni Afrique dañoo dégg parce que loolu mu nekkoon di expliquer. loolu la Afrique du Sud yàggul dara ay weer si ginnaaw Sénégal boobu noonu bi doon jënd ji train. Mhm. dem na jënd ji train Afrique du Sud. c'est-à-dire pour montrer que. Mhm. parfois ñun dañoo amoon problème politique. tey bu ñu amee nit ñoo xamante ne seen loxo set na. sàcc ñu alal réew mi. Mhm. premier ministre wax na sànq si rationalisation des dépenses de l'État. nga doon gis tey jii benn parking automobile boo xam ne. lañ fay dajale si oto. Mhm. salaire yi nombre de ministres yi nga xam ne actuellement ñu euh, bi ñu ñëwee dañ ne ñoom wàññi nañ ko ba vingt cinq. Mhm. mais c'est-à-dire yooyu noonu moo lay permettre nga mën a def économie boo xamante ne nii dina mën a dina mën a am yenn koppar yoo xam ne di ko def ci ci yenn liggéey nga ñëw fekk fi institution bu mel ni Haut Conseil des collectivités territoriales fekk fi conseil économique social et environnemental. Mhm. ay milliards di ci dugg. lu supprimer ces institutions loolu ndax njëriñ bi ñu am bëriwul. Mhm. léegi xaalis boobu dama koy jéem a dugal ci yeneen yi mbir lu ëpp solo par exemple électrification rural mhm. mhm. gis naa si que d'ici deux mille euh, vingt neuf. électrification rurale daa war a dajal dëkk bi yëpp. loolu aussi pour man lu am solo la mooy fii ak deux mille vingt neuf électrification rurale dootul nekkati actualité dañ koy régler totalement mooy da fexe di di électrifier mais à partir de fii ak deux mille vingt neuf da fexe ba courant daj Sénégal. une bonne fois. Mhm. donc loolu je pense que c'est des projet yoo xamante ne nii euh, yu am solo la mais daal li si ëpp solo mooy ñun sénégalais ñu am conscience que. lii ñu ñu proposé tey. Mhm. koo mën a doonaa ah, koo farat koo bëgg ak c'est pas important. mais il est temps ñu dajaloo bëgg naa nit kii mhm. bëgguma nit kii c'est pas le plus important le plus important mooy ñii comme que ñun mënuñoo wax a wax a wax a wax bañ jógee fii te 2029 jotul. est-ce que duñ leen accompagner pour que ñu réussir cette mission mu nekk avantage yu ñëpp ñu noppalu. parce que tey man Ousmane Sonko bu échoué man mënu man mënu si gis sam bopp. c'est impossible. malheureusement parce que tey. Mhm. mais secteur privé bii bu ñu leen jàppale mhm. ëllëg ñoom ñooy recruter ku mel ni moomoo ñooy recruter keneen. Mhm. parce que bu fekkee ne seen liggéey gën naa dox. dinañ gën soxla recrutement. il faut ñu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu réew mi moo tax à chaque fois économie bu endogène ngay dégg. souveraineté ngay dégg mooy naka la ñuy def ba suñu doomu réew. ñu suqaliku par rapport ak dette yooyu day gën a wàññeeku parce que li ñu soxla dañ koy génnee ci biir réew mi. il a fallu le ministre des télécommunications génn. Mhm. pour xamal ñu ne ñu Canal Plus bi nekk ci biir réew mi. Mhm. depuis plus de vingt ans. Mhm. Canal Plus paye million au lieu de quatre virgule un milliard par année. ku war a fay Vito quatre virgule un milliard at bi at bu jot maanaam depuis que Canal Plus nekk au Sénégal. depuis at bu jot dafa war a fay quatre virgule un milliard at bu jot Canal Plus soixante quinze millions lay fay léegi imaginel say. te benn exemple la ci exemple mhm. am ñoo xam ne yàgg nañ ci réew mi wut saayet booy ñëw ñu lay wax keroog liir naa chiffre boo xam dama tiit la tegal sax match yu neex ay centaines de milliards mhm. des centaines de milliards yoo xamante ne tey ñun réewum Sénégal ay doxandéem dañuy ñëw investir ci biir réew mi mhm. war koo fay lempo xam nga koy fay cent milliards ci lempo kay bul xam ñaata la gagné eh, c'est waa léegi loolu moom gagné na d'accord léegi li mu war a def ci réew mi ñun pour que ñun ñu mën ko jël xaalis boobu mënoon servir tey ay hôpitaux ñu tabax ko si. Mhm. xaalis boobu mënoon servir tey yenn zone yoo xamante ne nii ay nit dañ dañ leen yéegal ci charrette ak. Mhm. pour ñuy pour ñuy pour ñuy mucc. Mhm. mais loolu waroon mën a servir réew mi. nga ne tubaab yi léegi yéen ñëw leen ngeen liggéey si biir dëkk bi. ngeen jël seen recette ak lépp. ngeen dem tranquillement quoi ñun defal nañ leen exonération. pendant ce temps économie maanaam secteur privé réew mi di gën a nërmeelu. da ngay xoj tamit say doomi réew. du ñu du ñu évoluer. au moment où nga gis yow xanaa bu fekkee muus nga yow nga nekk président. delloo ginnaaw saa yu doomu réew. Mhm. ñu ne la par exemple danga war a gisee ak chef d'état bu benn dëkk par hasard. Mhm. yow nga dem gisee ak chef d'état boobu d'ailleurs mais stade bii nii Abdoulaye Wade bii. Mhm. pourtant bi fi Erdogan ñëwee dafa ànd ak ay archi architecte yu jóge réewam. parce que moom day njaboote ñi nga xam ne ñoom ñooy secteur privé wu réewam ku muy gisee day jéem fexe ba buy waxtaan ak Sénégal day fexe ba moom. Sénégal moom ay entrepreneur am naka la ñuy def ba mën a profité ci yenn chantier yu Sénégal am. projet Abdoulaye Wade bi ñoo ko def et c'était pas du woon hasard le fait que biñ koy inauguré Erdogan ñëw teewee ko. parce que ay ay doomu réewam ñoo liggéey stade bi nga génn ci lu ëpp cent cinquante milliards teg ci taabal ji. donc réew yëpp di fonctionner noonu yow pendant ce temps yow sa sa ay euh, sa doomu réew yi. sa ay champion national da ngay nërmeel. Mhm. dem di dooleel ñeneen xoolal tey ji projet bu mel ni nga dem fekk entreprise bu nekk France nga xam ne nërmeelu na sonn mhm. Mhm. nga ñëw Emmanuel Macron comme moom gëm na ay doomu réewam muy xool entreprise boobu nga xam ne amul lu mu liggéey mu ñëw ne la léegi yow da nga bëgg danaa la defaral benn terre sa sa biir dëkk terre boobu sama ñii nga xam ne ñoo nekk sama biir réew te actuellement ñu nekk en faillite mhm. ñoom laay relancer à travers ce projet bi nga bëgg a def sa biir dëkk yow léegi terre boobu moom mu jël ay doomam ne leen dem leen ñu génne terre li ci def mat na deux mille deux cent milliards mille deux cent milliards ci loo xamante ne nii diggante fii dakaar fii nii. jàpp fii jam euh, jam ñaajo xaw ma jas. te taw bi sax du mën a daw. du mën a daw. Hmm. mais il faut que ñu xool naka la ñu tëggaatee réew mi mais teg ko ci loo xamante ne lu koy jëmalee kanam la. Hmm. mooy xaalis bi ñu koy dugal foo xamante ne nii lu ñuy jëmalee kanam la. Hmm. mooy investir ci xam-xam. xam-xam moom la réew yi di rawante actuellement malheureusement on n'a pas xoolal. pétrole ak gaz. mais ñun ba ñu dalee yëg ne ñun pétrole ak gaz. ma ngi feeñ ci biir réew mi. Mhm. man je me pose la question pourquoi sunu njiit yi ils ont pas eu l'intelligence de teel anticiper dem xool ay ndaw yoo xam ne dañ leen a jël yóbbu leen bitim réew pour que ñu dem jàngi bu ëllëgee suñuy wax waxu pétrole ak gaz ñoom. ñu ñëw samp sam ñi ñëw samp bi vidéo li may wax ni c'est tellement terre à du xam-xam bu bëri bu dara. Mhm. vision la rek vision. pourquoi amuñu woon xam-xam li ñuy wax gouverner c'est prévoir. mais pourquoi ñoom mënuñu mm. am vision boobu noonu quoi mm. toog nga ne. Mm. Eh, sama dëkk de am na pétrole ak gaz donc fii ci kanam dinaa soxla ñu seen xam-xam màcc lool ci mbir yooyu. Euh, euh, xaaral euh, élèves yi nii concours général. Mhm. élèves yi génn ñu ne ñoo dàq jàng ci réew mi. mu financé leen fayal leen formation. ñu dem defi ko lii c'est tellement simple. Mhm. pourtant defuñu ko. fan la ñuy gën a dugal suñu xaalis ba pare favoriser retour des esprits parce que gars yi tamit bu ñu demee jàng ji situation bi ñu fiy fekk. Euh, day day daa nar a tar ba dañuy préférer. dañuy préférer ñëw et c'est très dommage malheureusement loolu yëpp politique moo koy def ndax capital humain bi bu ñu ko bëgg a développer. Mhm. politique bu politique rek ci mën dara. parfois da ngay neex ak corruption ak yeneen ak yeneen ak yeneen fu mu am yii rek. moo ñuy daal malheureusement da am occasion waxtaan ak ku nekk ci diaspora bi. il te mhm. dit man fi ma nekk nii amuma lu mu gënal dem Sénégal dem Sénégal. mais sëñ bi damay ñëw Sénégal ak sa à li ma mën a jëriñ réew mi yëpp doo mën a am foo jaar pour jëriñ réew mi. moo dañuy am xoolal tey jii mooy exemple bi ma la jox rek. Mhm. tey ji euh, nu mu tudd tuddati euh, cabinet bi liggéey si bi liggéey ak primature. ci mhm. ci ci programme référentiel bi. si référentiel bi. Mhm. dañu yàgg nekk ci biir réew mi nekk ay borom xam-xam. mais dañu leen wan ginnaaw. yow soo waree liggéey loo xam ne ci wàllu planification la jëm. nga dem ñu ne la bon dañu lay boole ak benn. cabinet international nga dem liggéey ji ak kooku quoi mm-hmm. xeeb nga sax ay doomu réew te pourtant xam-xam bi ñu am moom la ñële am fa ñu jàngee fa la ñële jàngee mm-hmm. mais da am benn complexe ci non ñii bon cabinet international la wala yu demee mm-hmm. et aujourd'hui on a une génération bu décomplexée partout en Afrique et loolu énergie boobu noonu moom laay wax ne moom moo ñu war a yóbbu ci ci ci développement mooy am nañ njiit yoo xam ne wax dëgg yàlla lañ gisagum ñu teg ko comme ay jéego wane nañ ni volonté bi mi ngi fi man su ma dégloo premier ministre mu ne moom ba léegi laalagul dara maanaam c'est tout ce qui la primature premier ministre laalagu ko tegagu ci loxo te ku ñu xam ne mi ngi liggéey depuis depuis ay ay weer koo xam ne d'ailleurs c'est pas la première fois mmh. def na ko en tant que député mmh. def na ko ci mairie bu bu Ziguinchor mmh. waaw mais pourquoi d'autres n'avaient pas pensé à ça du force de mais loolu ça montre que kii kat am na benn volonté bu muy demee le président de la république façon bi nga xam ne nii moom lay doxalee xam nga tey nga ñëw si biir réew yow en tant que président de la république ñu fal la et loolu dafay dugg secrétaire général de mon parti je vais démissionner de mon parti c'est-à-dire mais loolu. c'est des choses yoo soo ko féli soo ko félicité wul. Mhm. loolu waroo ko waroo am leneen loo si mën a teg. di teg ay jéego bis bu ne xoolal mhm. exercice bi ñu def yàggul dara. Mhm. mooy génn jàkkaarloog sénégalais yi au moment où nit ñi ñu ngi am yaakaar mënoon nga ne yii su ma fi génne naa leen ay réew mi daa nekk fii dañ may kii garaaw. bàyyi ma jéem a maquiller rek gëmloo leen ne ça va quoi. wala nga jékki-jékki def ay dëbb daaxe def ay affaire gars waaw waaw bravo gars ñu ngi si yoon. mais danga nga préféré ñëw ne leen sëñ bi lii mooy dëgg fii la réew mi toll. Mhm. à partir de sa moment laa nag ngeen góorgóorlu xool naka ngeen ni fexe évoluer egg ci beneen étape. surtout te jàpp naa ne loolu lu war a mën a nekk la. Euh, loolu lu war a mën a nekk la le discours du président devant son gouvernement. ñaari phrase ban moom ma ci gën a tikke. Mhm. nee na leen le peuple et mobilisé te si on arrive à le désenchanter on ne pourra plus. Mm -hmm. le mobiliser. loolu oui. c'est c'est c'est c'est très fort. yaakaar. waaw nee na leen nit ñi nu ñu def ba dajale leen. Mhm. fu mu toll nii bu ñu fexee ba seen yaakaar tas. c'est fini dootu ñu leen mën a dajale. c'est loolu moo risqué li ngay wax nii. Mhm. maanaam waxu euh, président Bassirou Diomaye moo tax sànq may wax teg fa jeexal. muy on a plus le choix maanaam ne fi di xool. Mhm. xam nga parfois di ngay même si jouer sax. nga xam ne non soo échoué am nga chance de waat. ñii ñaanuñu ko ñii bu ñu échoué ban chance victoire la ñu am maanaam lii bu doxul fan fan lañ jëm parfois damay dégg kenn mu ne suñu yaakaar dafa tas quoi gars bi fi nekkee ba léegi affaire bi changé gul mm-hmm. d'accord supposons Vito man sama yaakaar tas na si ñii mm-hmm. léegi sama yaakaar bu tasee ñi man fan laa jëm léegi qu'est-ce que je vais faire <laughs> damay waat Macky Sall ne kañ defaat le président wallaay bi fi nekk nii si ñoom laa war a dem daw laa ko ji. Mm-hmm. on n'a pas le choix ñii lenn lañ fi laissé comme choix moo ñu buux ñii ñu àgg fi ñu war a àgg. wax ma beneen choix bu dul loolu amul. mooy bu fekkoon gis nga leneen lu gën lii sax nga ne noonu nañ bàyyi lii dem ci leneen waaw mais lii même suñ demoon ñun ba suñuy ay yaakaar tas ñun ñu ne noonu lii ñun rëccu nañu tax ñu faloon jomaay. lan la ñuy def qu'est-ce qu'on va faire plus le choix. mooy réew mi dafa jàll ci ay période yu sombre ay nit ñàkk seen bakkan. réew mi jaar ci ay étapes yu mais malheureusement dafa mel ni am na nit ñoo xam ne amuñu conscience ci. réew mi fi mu jaar mooy li ngay wax léegi ci biir discours bi mi ngi koy wax. Mhm. ne ñoom ñi nekk ci gouvernement bi dañu war a bàyyi xel ci fi réew mi jaar ba ñoom ñu agsi foofu ba toog nii si jàmm. Mhm. dañ koy bàyyi xel. Mhm. ci biir discours am bi muy wax ne mi ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi bàyyi xel euh, ñi nga xam ne tey ñoo ñàkkoon seen bakkan ci xeex beeg yooyu. récemment premier ministre génn euh, di wax ne. moom situation bu ñëw bu nekk rek suy xalaat lu muy njëkk a xalaat jël décision day day xalaat ndaw yooyu nga xam ne mm-hmm. tey ñii dañoo ñàkk seen bakkan ci mm-hmm. mbedd yi mm-hmm. dund situation yu catastrophique imagine dans un pays boo demee bañ lay compter ay plus de mille deux cent prisonniers politiques ay ndaw ñu jël leen surchargé leen ci biir prison yi ay nit ñàkk seen bakkan lu ne xew ci biir réew mi waaw léegi loolu boo si jógee dafa am benn conscience boo xam ne moom la war a jur si yow mooy ñun on a plus droit à <laughs> ku ko def dañ lay si kaso bi fàtteel la fa abadan non plutôt sérieux <laughs> mënatuñ yooyu mënatuñ si dellu situation bi nekk dafa dafa dafa dafa dafa métti mm, te dañ ci war a jógee c'est le moment ou jamais c'est le moment mhm. dañu war a réussir une bonne fois quoi ñu génn si mm. yii su ko mm. defee ay affaire yi na fi di ndoxu taayeeg ay ñii amuñu problème mu lekk ak ñii ay problème mu ndox ak ñii ay c'est-à-dire faut qu'on règle situation yooyu quoi depuis ba léegi. Mm-hmm. cette fois-ci la man de laa am en tout cas yaakaar. te moom sax c'est pas hypothétique euh, c'est pas utopique. Mm-hmm. parce que li ngay wax ay Japon ay Chine. ay c'est des personnes comme comme qui l'ont fait. ay nit pourquoi ñun boo ko waxee au Sénégal on te fait croire que li nga bëgg mënul mënul <laughs> mënul nekk. c'est très dommage mais heureusement que tey mooy li may wax ci euh, conscience bi jeunesse bi nekk di am mooy nit yi ñu commencé di comprendre que affaire bi c'est pas compliqué. yow Vito su fekkee ne Euh, ay weer si ginnaaw bi ñuy toog fii. Mm-hmm. président Macky Sall ne dafa aj élection yi. Mm-hmm. yow xalaat nga ni non fii six mois sept mois si kanam ñun dinañ toog fii. di débat ci référentiel di débat ci référentiel. Mm-hmm. moo lay woon ne lu ne war naa mën a nekk mais day fekk ña ko seq ñu gëm ko xeex ci. mais comme cette jeunesse là am un leader bu mel ni Ousmane Sonko gëm benn mbir. di si xeex di si xeex di si xeex ba mbir mi agsi fii. suñu gëmee noonu ne dañoo war a développer réew mi ku si nekk fa nga a domaine am pêche la. Mhm. kii domaine am agriculture la. Mhm. kii euh, dafa am xam-xam ci wàllu technologie. kii droit la xam kii feneen ak feneen la xam ku ci nekk fa nga war a jàpp ñu jàpp fa et li may wax ci comportement yi. Mhm. mooy tey lu mel ni euh, corruption par exemple Sénégal li ñu gën a sonal mooy yenn xeetu indiscipline. fépp xoolal démb rek laa mujjee gis. Euh, accident bu doy waar. waaw bopp sa bopp. waaye léegi conscience boobu noonu ñu bala ñoo waxu projet. man chauffeur bii toog sama sama sama sama volant di dawal. bala maa wax si projet bi est-ce que man waruma évaluer sama bopp ba pare discipline bi ma war a am ci kaw tali bi. leneen ak leneen nit ki liggéey bi par exemple euh, kii liggéey si biir administration bi respecter heure bi mu war a liggéey même si su ma waxee respecter heure xam naa ñi ma xam dinañ ma reetaan <laughs> <laughs> mais il faut cest moo tax ma ne. Mhm. sunu ay comportement dañuy généraliser sunu ay mhm. comportement mhm. la ñu war a revoir ku ci nekk li nga war a mën a apporter ci biir réew mi parce que potentiel baa ngi fi. ay ndaw yu am xam-xam ñu ngi si biir réew mi mais malheureusement le problème ko a toujours eu. mooy Vito ndaw bi am xam-xam. ki liggéey euh, ki ki jaar fi mu war a jaar jàng fi mu war a jàngee. dañ naan ko yow toogal. dem fekk li buggaat naan xusuma ñàpp. Mm. mais da ngay koo xam ne wax ju bëri ak rëy làmmiñ la ëppale ñooñu la ñuy jël jiital leen ci kanam amuñu xam-xam. dëgër fit rek sampu. mais réew kay réew xanaa boo bëggee mu dox da ngay xool ñi am xam-xam nga dénk leen. Mm-hmm. mais da naan ñi am xam-xam dañ leen toog. et eh, c'était très dommage parce ki am xam-xam da doon ne man dama seexlu politique. je vais pas faire de la politique. Mm-hmm. dem toog jàpp ñaam mu mm-hmm. temps ki xamul dara. moom la ñuy jox muy rajaxe donc loolu moo war a changé tey bu demee ba ñu gis borom xam-xam yi ñu mobiliser leen. Mhm. yow jëlal gouvernement bi yëpp nga indi profil par profil. Mhm. kan moo ci amul xam-xam wala kan nga si jàpp ne ñu ko dénk mënu ko. ko mhm. donc loolu bu ñu ko amee mooy am nañ un premier pas boo xam ne teg nañ ko. yow xalaatoon nga ne dans un pays dinañ dem ba ñuy fal ministre boo xam ne ministre bi bi ñu koy fal président bi koy fal xamu ko da fal quelque temps m soog a rencontré. juste proposé nañ ko un profil mu gis ne kii su ma ko dénkee agriculture muy Mabouba Diagne. su ma ko ko dénkee mun na koo doxal mu dénk ko ko. Mhm. Abdourahmane Diouf su ma toogee di ko déglu quand ci suy wax si wàllu. Euh, éducation euh, ci wàllu euh, waay éducation bi ci études supérieures yi. Mhm. mais da ngay xam ne kii li muy wax xam ne si dara. Mhm. donc loolu suñ ko boolee le ministre El Malick Ndiaye nga xam ne dégg naa ñenn sax nee nañ moom mooy ministre de l'année quoi mais dafa teel nañ xaar ba ci kanam. mais cest li ñu nekk di gis actuellement rawatina yàqu-yàqu yi ñu fi fekk. réew moo xamante ne nii foo laal demal moo tax état des lieux bi dañuy encourager à ce que mu continuer mhm. DG yeeg ministres yeeg ñëpp génn wax ak sénégalais yi. Mhm. wax leen fan la état wu réew mi toll ñu xam ko. Mhm. parce que c'est important même si am na ñoo xam ne mënuñu ko rafetlu. man mënu ma comprendre nga fal ay njiit njiit yi ñëw si yow ne la ah yow de yaa ñu dénkoon waaye bañ ñëwee lii lañ fi fekk. te li ñu wax kenn weddiwu leen de imaginer nga cité Amadou Ba. nga cité Abdoulaye Daouda Diallo. nga cité Mamadou Moustapha Ba cité Macky Sall nga ne leen. yéen génn leen ngeen jox des explications aux Sénégalais. kenn génnul kenn génnul. te yow li nga wax da nga ko ñëw mais Sénégal imagine la Sénégalais bi toog këram moom xool nga wax ba pare mu ne non ci day wax rek alors que yow ñi nga si de ñoom génnuñ di di la weddi donc c' est très dommage quoi. c'est c'est c' est très dommage am na tamit leneen lii euh, le président Bassirou Diomaye wax nee na personne n'entra n'entra n'entraînera mhm. dans sa